<clears throat> bismillahi arrahmani irrahim in alhamda lilah nahmaduhu wa nastaciinuhu wa nastagfiruhu wa natuubu ilayh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fa inna asdaqa alhadithi kitabullah wa xayra alhadiyi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa charra alumuuri muxdasatuha wa kulla muxdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nnar yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha xaqa tuqaatih wala tamuutunna illa wa antum muslimun yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaqu allaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba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 di leen ndokkeel itam ci weeru màgg wi nga xam ne ci lañu ñu nekk muy shahru ramadan di ñaan yàlla mu nangul nu suñu jaamu yàlla yàlla may nu itam ñu daje ci benn ci néegam yi di fàttalante li nga xam ne moo nu digal ñu fàttalante ko te mooy lislaam waxtaan wi nag ñu ngi koy jëmale ci insha allahu julli ak wàccuwaayam ci lislaam kon ñu ngi jéglu ñoo xam ne gisoon nañu mawdoo bi ñu tërale woon ko neneen te yaatug waxtu wu ñu mën a may ñu waajal loola moom lañu ñu amut moo tax ñu jëmale ko ci julli te julli moom moo jiitu ci biir liy tax nit ki nekk jaamu bi yàlla dëgg-dëgg ndax niñ ko tuddee woon mooy kayfa tataxaqaqu ubudiyatuna lillahi subhanahu wa taala maanaam naka la nekk nekkee jaamu bi yàlla dëgg-dëgg loolu lañu tuddee woon buntu waxtaan wi waaye nag la aju woon ci war a waajal buntu booba waxtaan yu tegaloo yi ndax ñun ñu ngi jógee rek ci benn waxtaan léegi bu ñu doon def ci tambour de comète fa lañ jógee directement daal di ñëw fii suba yi ñi am beneen waxtaan ci aéroport waxtaan yu sësaloo yooyu moo tax euh, pour waajal ko day jafe comme fekk na nag ñu waajaloon waxtaan wi jëm ci julli euh, moo tax ñu sappe ko noonu ñu xamee ko noonu kon euh, julli nag baat bi li muy tekki muy assalaa assalaa li muy tekki mooy ci luxa mooy ñaan buñ ko waxee rek ci arab mooy ñaan moo tax ngay mën a dégg ñu naan dañuy jullee néew bi xam nga julli googee wuute na ak julli yii ñu xam xam day am ay rukkoo am ay sujjóot boo ko julli amul rukkoo amul sujjóot kon dañ koy ñaanal ngay dégg itam ñu naan dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga julli googee itam du dem di rukkoo ak a sujjóot ci bàmmeelam walla ci moom ci boppam waaye mooy nga e, ñaanal ko allahumma salli ala muhammad yàlla yàlla na nga ko dolli xéewal waaye nag buñ ko waxee nag ci sharia nag sharia islamiya li mu tuddee e, julli mooy loo xam ne day tàmbalee ci kàbbar jeexe ci sëlmal ak jaamu yàlla la goo xam ne itam dafa amu melo wu mu jagoo ca lañu cay wax ak lañu cay jëf du lu la neex nga sañ a wax ci biir julli donte loola lu baax la du lu la neex neex itam nga sañ a def ci biir julli donte loola lu baax la ci bitti julli waaye boo xasee dugg ci biir julli moom tënku nga ba ba ngay sëlmal li ngay def ak li ngay wax dañ koo tënk ci aw melo woo xam ne mënu koo génn julli nag wàccuwaayam ci lislaam eh, kawe na lool ndax gannaaw bu ñaari baati seede yi dugal nit ci lislaam jàllee li gën a rëy ci loo xam ne nit ki dana ci feeñale nu mu nekke jaamub yàlla la ko gën màndargaal mooy julli jaamu yàlla yépp itam leen tax a jóg mooy defar nit def ci moom ak ragal yàlla moo tax suñ boroom ne yaa ayuha nnaas ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaquun illa bango jaamu yàlla soo koy def du benn peen buñ la gàll rek aw sas wuñ la sas rek nga ne naa ko def te jóg fi waaye dafa am lu muy def ci yow loo xam ne war nga koy seetaale ba xam mi ngi amam déet mooy ak ragal yàlla la war a def ci yow ak ragal yàlla nag mooy dem ba am yëg-yëgu ne foo nekk ak looy def suñu borom tabaraka wa taala nga koy seedeel ngërëmam nga ciy wut meram moom nga cay ragal loolu su ko nit ki taqoo muy melokaan bu taqoog moom boo xam ne doonatul lu muy jéem waaye dafa taxook moom loola moom la ñuy tuddee ak taqwa muy ak ragal yàlla goo xam ne jaam benn bu nekk moom nga war a wut moo war a doon saw sas ndax suñu borom booleem lu mu digge ci xéewal ëllëg yowmal xiyaam diggu ko kenn ku dul ku ragal yàlla ku ragal yàlla rek la yàlla di xéewal masalul jannati allati wu'ida al muttaquun wu'ida al muttaquun ajjana day borom bi nee na ñi ragal yàlla laa ko dégg wa saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ajjana borom bi nee na waajal naa ko dël naa ko ñi xam ne dañoo ragal yàlla wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya thumma nunajji alladina attaqaw wa nadaru ne wa in minkum amul kenn ci yéen illa waariduha lu dul dana rot ci safara maanaam ñëw fa nekk lu yàlla dogal la lu mu àtte ba noppi la su ñëpp ñëwee nag mu summa nu najji mu daal di musal nag allazina taqaw ñi ragal yàlla kon ndekete safara bu ñuy jéggi siraat jéggi siraat gi mooy lool parce que siraat ci kaw safara la nekk te ñëpp fay jaar nee na nag ñi muy musal moom yàlla mooy ñi nga xam ne rek am nañu ragal yàlla kon nag li ñu ne day joxe ragal yàlla kooku ku am xel te nite mooy doon sa jubluwaay bi gën a rëy te la koy joxe nag mooy jaamu yàlla mooy jaamu yàlla yépp dañuy sellal bakkanu nit ki jox ko ak ragal yàlla <clears throat> julli nag ak yoonalam sax na ci alquran ak sunna ndax jaamu yàlla balaa tuddug jaamu yàlla day nekk mashruu lu ñu yoonal waaye du doon lu ñu fent soo jékki-jékkoon fent dara rek loo xam ne yow yaa ko rafetlu ci sam xel di ko def waaye boroom bi tabaraka wa taala diglewu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewu ko loola kat moom bu boobaa du mën tudd ak jaamu waaye e, lu ñu sos rek lay doon suñu borom wax ci alquran ci barab yu bari fa aqimu salaata wa atu zaka na ngeen di julli tey joxe asaka wax ci beneen aaya bu nekk suratu nisa fa aqimu salaa inna salata kaanat ala almuminina kitaaban mu ne dee leen taxawal julli ndax julli kat dañ koo farataal ci ñi gëm yàlla kitaaban dañ koo farataal ci ñi gëm yàlla comme ni mu waxee ne kutiba alaykum siyaam la waxaat fii ne kitaaban mawquta ay furida yàlla farataal na ci yéen koor ah, julli wutal ko nag waxtu kitaaban mawquta farata joo xam ne dafa am waxtu wuñ koy def yonente bi sallallahu alayhi wa bi muy lim ponk lislaam yi mu def ko muy ponk ñaareel ci hadis boo xam ne abdullah ibnu amar ibnu alxataab nettali na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne buniya al islaamu ala xamsin shahaadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami alsalati wa itaai alzaka wa xajji albayti wa sawmi ramadan rawaaxul buxaari yonent bi sallallahu alayhi wa ne lislaam day ñi ngi ko tabax ci juróomi kenu seede na yàlla rek mooy buur seede na moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa ci moom rek lañu war a mën a jële diine mu wér taxawal julli joxe asaka aj makka woor weeru koor ñu gis kon ran bi julli jur jël ci biir ponki lislaam yi boroom xam-xami xeet bi yépp itam daje nañ ci ak waram ñu daje ci itam ne ku ko bàyyi te tey ko kooku àtteem mooy dañ ko war a rey shar'an koo xam ne daf koy dooy dal itam nag kooku ab faasiq lañ koy jàppe ku jubadi ku génn ak topp lañ koy jàppe wàccuwaayam nag moom julli moom mooy kenul diine ji nga xam ne diine mënta taxaw te julli nekku ci diine mënta taxaw te julli nekku ci xam nga yeneen yi ci des yépp lu mel ni asaka nit ki mën na dundu sax ba jóge fi te du ma sa joxe asaka ndax xëy na amu ko waru ko koor itam nit ki mën naa am koor gi di ko fekk ci ngànt te amul yeneen fan yum ko mën a faye aj makka tam nit ki mën na fay nekk ba jóge fi amul jàpp ndalu def waaye julli nag moom mooy loo xam ne nit ki mënta am lay ci ñàkk koo def ndax bu ko mënta defee ca melokaan wañu ko miine itam weneen melokaan wu mu ko mën a defee rek fokk mu defe ko noona waaye kenn du ko bàyyi lu dul koo xam ne dafa tàggoo kum xelam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne rasul amri al islam wa amuduhu alsalaa wa zirwatu sinaamihi ji daal di sunu mbir mii bopp bi nga nangoo dugg ci lislaam waaye nag mu ne kenn bi ko téye nag mooy julli waaye mu ne somme ba nag muy la gën a kawe kooku mooy aljihaadu fi sabilillah julli moom la borom bi tabaraka wa njëkk a waral ci jaamu yàlla yi moo jiitu koor moo jiitu asaka moo jiitu aj te itam nam ko farataale itam wuute na ak ni mu farataale yeneen jaamu yàlla yi yeneen jaamu yàlla yépp sayyidina jibril alayhi salaam mooy wàcc andi waxyu gi mu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala mu farataal la muy farataal waaye julli moom ci la suñu borom wooye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wuy ji ci laylatul israa wal mi wal miraaj mu dal ko fay jox julli ci lu dul kenn di dox ci diggante bi loolu rek mën nañ cee gën a déggee wàccuwaayu julli ak nu mu rëyee ci biir lislaam anas ibnu malik radiallahu anhu nee na furidati salaatu ala annabii sallallahu alayhi wa sallam laylata usriya bihi xamsiin summa nuqisat hatta ju'ilat xamsa summa nuudiya ya muhammad innahu la yubaddalu alxawlu laday wa inna laka bi haadihi alxams xamsiin rawahu ahmad wa nasai anas ibnu malik radiallahu anhu xam ngeen ne ku taqoowoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko daan liggéeyal ci lu bari ci mbirum këram bañ ko daan tuddee sax xaadimu rasulillah mu ne farataal nañu julli guddi ki nga xam ne ci lañu rañaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli nee na nekkoon juróom fukki julli la ko yàlla defoon ñu di ko wàññi ca xissa ba nañ ko xamee ci al ba def ko juróomi julli waaye suñu boroom nag daal di woote ne ko yow muhammad kat sallallahu alayhi maa ngi lay xamal ne man yàlla lu ma xas tëral du soppi ko waat laa yubaddalu alqawlu ladayya kon nag la ma dige woon ca juróom fukki julli ya ba tey moom laa dige ci juróomi julli yi juróom fukki julli ya la ma leen ca naroon a fay ku ko julli woon ba tey ku julli juróomi julli yi loolu laa la cay fay loolu dëppoog la aaya ba wax man jaa bil xasana fa lahu asru amsaaliha ku indi benn bu baax boroom bi dalay fay fukk yu toll ne moom kon genn julli goo julli rek fay nañ la juróomi julli su ko defee kon juróomi julli yi ci matee genn gu nekk nekk fukki julli dafay daal di nekk juróom fukki julli ñaareel ba julli moom la ñuy njëkk a régler jaam bi yowmal xiyaam hiya awalu ma yuxaasabu alayhi al abdu yowmal qiyaamati qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awalu ma yuxaasabu alayhi al abdu yowmal qiyaama assalaam fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali rawahu tabaraani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li ñuy njëkk a seetal nit ki bu demee yowmal xiyaam ci téeréem téeréem ay jëfam mooy julli nee na suñ ko seetee mu yéwén moom julli mu wér rafet mel nam war a mel leneen li ci des lépp dana yiw dana rafet ndax julli moo gën a diis ci jaamu yàlla yi ko mën a rafetal jaamu yàlla guy am bis bu ne waxuma la bis bu ne waaye bis bi mu ci am juróomi yoon kooku ku ko mën a rafetal war a mën a rafetal jaamu yàlla guy am benn yoon ci at lu mel ne koor war a mën a rafetal jaamu yàlla guy am benn yoon cib dund lu mel ne aj makka war a mën a rafetal jaamu yàlla guy am moom it benn yoon ci at ci ku ko am muy asak bu mën a rafetal jaamu yàlla bis bu nekk Euh, war a mën a rafetal yooyu moo tax su julli gi rafetee rek ñoo xam ne yi ci des kon rafet na moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ku ko sànq leneen lay gën a sànq ndax julli ni mu ko jegee ak ni muy baamoo ak ni ñu koy soññee jamono bu nekk ngay dégg ñuy nodd doo dégg ñuy wootee di nodd naan ñëw leen joxe asaka doo ko dégg wala ñuy noddal koor naan ñëw leen woor doo ko dégg mais julli ngay dégg foo toll ñu koy sol ci sa nopp yi naan ñëw leen julli hayya ala salaa hayya ala falaa moo tax mu ne su baaxee lépp baax waaye su sikkee itam nag li ci des lépp itam day daldi ayib duñ jàll ci leneen bu julli gi normalul rek leneen sax duñ ci jàll di ko seet julli mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa mujj dénkaane moom la mujj a dénk xeetam bi bi muy génn àdduna ma nga doon wax naan assala assala wa ma malakat aymaanukum assala assala wa ma malakat aymaanukum maanaam maa ngi leen dénk julli di leen dénk julli di leen dénk itam ñi nga xam ne dangeen ngeen leen a yilif ñoo xam ne dangeen ngeen leen a yilif ñuy ay jaam walla bu nekkatule jaam it nekk ay surga yoo xam ne ci sa suufu kilifteef la ñu nekk ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa dénkaane na bu baax ku leen di rafetal jëme ci ñoom ba tey moom julli mooy li ñuy mujj a ñàkk ci diine diine lu ci baree baree bari mën naa dem ba dutu ko gis waaye julli moom moom moo fay mujj ndax dana rafet nag wala du rafet waaye moom fokk nit ñi niir niral moom di ko def moom ndax ku ko defatul moom sa adresse nekk jullit da koy daal di ñàkk ci saasi te day daal gaaw a fës ndax nit ki mën naa bañ a woor te duñ ko xam ndax koor gi benn yoon lay doon ci at mi te mën naa am ba koor jotee fam nekkoon bokkul ak fi nga ne maanaam mu ne la man koor gi ah ma nga ma fekk barab sàngam saa boo koy gis daal du doon weeru koor asaka itam mën na koy bañ a joxe te doo ko xam aj maka itam nit ki mën naa bañ a aji te doo xam lu ko tee aji ndax ngàntam moom nit ki moo ko mën a xam waaye julli nag moom boo nekkoon ak nit ki rek bis bi wala sax lu matul bis ngeen bokk yandu rek danga nga daal di xam moom mii kuy julli la wala ku julliwul moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa ne la tunqadunna ura al islaami urwatan urwa fa kulla man taqadat urwa tabassat tabassat tasabbasa annaasu billati taliha fa awaluha naqdan alxukmu wa axiruhunna alsalaa rawahu bnu xibban yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne buumi diine day dana di dagg buum par buum lislaam bi da ko misaal ci lu mel ne ay buum mu ne nag dana di dagg buum par buum maanaam yoo xam ne atte yàlla la nit ñi di ko ba mu ne saa bu amee bu dagg boo xam ne kenn defatu ko nit ñi jàpp ca ba ca sës mu ne nag bi nga xam ne nag moo ci njëkk dagg ci buum yooyu mooy alxukm mooy atteb lislaam gis nga ko li ñuy dund fi ne daanaka benn barab booy gis ci kaw suuf ñu fay atte atteb lislaam bu wér bu amul jàng amul dara yamale buur yaag baadoola yaag yëpp moom daanaka gisoo waaw gisoo bu amee ñu koy atte itam am na catégorie nit yoo xam ne euh, atte booba ñaare bootu lu ci seen kaw te borom bi dana woon wala yattaxisa baaduna baadan arbaaban min dunillah qul ya ahlal kitab taalaw ila kalima sawain baynana wa baynakum an la illa allah wala nushrika bihi shay'a yéen waa ahlul kitaab kaay leen ci kaddu goo xam ne nun ñëpp a ci yem muy kàddu laa ilaha illa kooku ñëpp a ci suufam allah na illa allah du ñu jaamu kenn ku dul yàlla du ñu ci sunu biir ay buur ak loolu mooy atteb ñëpp a yem gis ko yonente waxe woon ba nga xamante ne am na ko sàcc te bokk ci askan woo xam ne wu nit ñi fonk la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg a doxal atteb lislaam ci kooku te mooy dagg loxoom ñu ne daal kii daal bu ñu daggee loxoom dana nekk gàcce lool ci ay mbokkam dana nekk gàcce ci famille kon nag nañu def intervention daal ñaan yonente bi sallallahu alayhi wa daal bu ñu ko mënee bañ a dagg daal ndax daal famille bi mu bokk dafa bokk ci famille bu rëy ñu ne nañ ca yabal usaamatu bnu zaydin ndax moom yonente bi sallallahu alayhi sopp na ko soppoon na baayam usaama ñëw wax ko yonente bi sallallahu alayhi li ko nit ñi wax mu ne ko atashfa'u ya usaama fi haddin min hududillah ndax yow usaama dangay ngay jéem a tinu di wut ak ramm ci peen ci atte boo xam ne yàlla moo ko tëral dal ne ko maa ngi lay waatal ci yàlla ne kooku ngeen ne dafa tedd sama doom man di Fatima bu sàccoon man danaa dagg loxoom kon ñu daal di xam ne kon bu dee wàllu nasab moom ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam la yam ndax kookeeg teddam ga ñuy wax xëy na jege ko mu jege yonente bi ci askan loola lañ ko bëgg a joxe tedd nga ba jàpp ne kenn waru koo dagg mu xamal leen ne moom sama doom man bu sàccoon ma dagg loxoom kon loolu mooy atte bi lislaam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne atte moom muy njëkk a faddu mu ne nag liy mujj fardu nag ci lislaam nee na moom mooy julli julli moom foo dem lu nit ñi sàggan sàggan ak lu caaxaan yi bari bari bari ngay gis nit ñi di ko def defin wa rek ndax dana rafet wala ndax dana mat loola moom beneen mbir la waaye ñàkk gaa def completement moom dem ci dëkk boo xam ne dañu tëj jàkk yépp wala jàkk amu fa kooku jafe na moom ci réewu dëkkub jullit moom julli itam mooy li dox diggante jullit ak kéefar muslim nettali na wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji wax ne bayna rajuli wa bayna al kufri tarku salaa mu ne diggante nit ki daal ak digganteem ak kéefar diggante nit ak kéefar nee na mooy mu bàyyi julli su julleetul rek dafay dal nekk ab yëf xam nga ñun sax ci suñuy waxin ci baatub julli boobu ci la ñu jële jullit muslim ñi ngi ko jële ci julli boobu ndax muslim moom lim doon firi mooy ku jébbal boppam yàlla waaye la gën a fis ca lam war a def nag mooy julli ñu jële ci nag baatub jullit moom julli moomu moo gën ci jëf yi ibnu mas'ud radiyallahu anhu nee na sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayul amali afdal nee na laaj naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ban ci jëf yi moo gën mu ne assalaatu ala waqtiha nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma daal julli ci waxtoom loolu moo gën ci jëf yi nga xam ne nit yi dana koy jëf ngir di wut ngërëmul yàlla julli nag day séddalikoo ñaari xaaj julli yi nga xam ne farata lañu borom bi tabaraka wa daf ko farataal muy assalawaatul xams ak julli yi nga xam ne nag moom ay nawaafil la ay naafila la ay ndolleen la yoo xam ne nit ki da koy def di ko dolli koo lu baax waaye ni ko yonente bi sallallahu alayhi yàlla nag kenn du ko wute jege diwun ngërëmam ci lu gën a màgg li mu farataal ci yow day gis ñoo xam ne ay naafil la ak ay ndolleen moom lañu ñu gën a farataal ci ay farata jàpp ne farata yi daal gannaaw moom lu ñëpp bokk la lu ñëpp yi def la ah yi nga xam ne moom xëy na ñenn ñi duñu ko def wala ñenn ñi sax xamuñu ko jàpp nañ ne daal lu loolu gën a raar loolu mooy ëpp tuyaaba fekk na nag borom bi tabaraka wa moom li mu farataal loolu moo la gën a gaaw a mën a may ngërëmam moo la gën a gaaw a mën a jegeel borom bi te it même naafila ya su fekkente ne defuloo farata ya naafila yooyu du ñu tekki dara bokk na ci ngëneelu julli dana dox diggante nit ki ak lu bon day dox diggante nit ki ak lu bon li ko borom bi wax ci alquran inna salaata tanha anil fahshai wal munkar julli day dox diggante nit ki ak i ñaawteef day dox diggante nit ki ak lépp loo xam ne lu ñu sib waaye la gën a rëy nag ci lu julli def nag mooy fàttali la yàlla wala zikrullahi akbar xam nga ñenn ñu foofu danañ juum ci aaya bi defe ne def ne foofu tudd yàlla moo gën a màgg julli fekk na julli moo jiiti ci tudd yàlla soo demee ci suratu taaha nee na aqimi salaata li zikri aqimi salaata limaata li zikri waaw kon kay julli zikrullah la laa la kon dalaa wax li muy def ci bitti waaye nag mu wax la nag la muy def nag ci biir rek ci yëgloo la yàlla jamono bu nekk bu communiqué la ak yàlla moo gën a rëy ci li julli def ci yow maanaam tanha anil fahsaa'i wal munkar loolu doo mu taxu koo jóg bu defee ne julli foofu rek la yam waaye nag fàttali jëm lay fàttali yàlla nag di la yëgloo yàlla jamono bu nekk loolu moo gën a rëy ci li nga xam ne moom la julli di def fi ngay waxe allahu akbar ba ba ngay sëlmal lépp zikr la lépp zikr la bi nga ne allahu akbar loolu du zikr tuddoo yàlla allahu akbar tudd yàlla commencé jàng alquran kooku zikr la ba nga rukkoo yaa ngay tasbix yaa ngay xabbaal suñu borom tabaraka wa taala yaa ngi def zikr ba nga sujjootee noonu ba nga toogee di taaya noonu làmmiñ bi du noppalu benn yoon julli amul fenn foo xam ne làmmiñ bi dana arrêté te li muy wax itam amu ci dara lu génn borom bi tabaraka wa taala lépp ci yàlla la dellu si kon julli moom mooy zikri bi gën a mag ndax soo ko xasee bay def cër yépp ñu ngi ci ànd làmmiñ wi mi ngi jaamu yàlla nopp bi mu ngi jaamu ndax mi ngi dégg li ngay def cër yi benn bu ci nekk lay wàllam ci julli ma ngi koy def kon cër yépp a ci ànd benn cër bu nekk am na nuñ ko placé ci julli gi loo xam ne boo nee ci biir julli gi lii la war a def julli mooy sabab texe borom bi tabaraka wa bi muy lim melokaan yi tax nit di texe lam ci jiital mooy julli mu ne qad aflaha almuminuun alladina hum fi salaatihim xaashicuun qad aflaha texe na almuminuuna ñi gëm yàlla ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ne ci seen biirug julli dañ ci ànd ak toroxlu dañ ci ànd ak yëg yàlla ci biir julli gi xosoo boobu bu amul rek zahwu mooy daal di am saahoon ku nekkul min al xaashiin bokk min al saahiin julli gi daf lay war a yëgloo borom bi tabaraka wa taala nga yëg ne yaa ngi taxaw ci kanamam mel ne yaa ngi koy gis moom borom bi tabaraka wa taala wala soo ko gisul nga xam ne moom mi ngi lay gis ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee ci al ihsan an taabuda allaha ka annaka taraah fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak julli itam ci la nit ki di amee équilibre maanaam tawazun ak dal dutuñu ko mën a tee nat danañ wax ba wax loo xam ne du doon lu ñuy mën bu ñu amee naqar itam am jaaxle di tam dañuy saalit danañu wax ba wax loo xam itam lu ñuy rëccu gannaaw bi lay nag borom bi nee na li rek mooy julli suñu borom ne inna al insana xuliqa halua ida massahu charru jazua te borom bi dana woon wala yattaxisa baaduna baadan arbaban min dunillah qul ya ahlal kitab taalaw ila kalima sawain baynana wa baynakum alla na'buda illa allah wala nusrika bihi shay'a yéen waa ahlul kitab kaay leen ci kaddu goo xam ne nun ñëpp a ci yem muy kaddu laa ilaha illa allah kooku ñëpp a yem ci suufam allah naabuda illa allah du ñu jaamu kenn ku dul yàlla du ñu jëlante ci sunu biir ay buur ak i baadoo la loolu mooy atteb lislaam ñëpp a yem gis ngeen ni ko yonente bi sallallahu alayhi ci jamonoom ba nga xamante ne am na ko sàcc te bokk ci askan woo xam ne wu nit ñi ponk la yonente bi sallallahu alayhi wa doxal atteb lislaam ci kooku te mooy dagg loxoom ñu ne daal kii daal bu ñu daggee loxoom dana nekk gàcce lool ci ay mbokkam dana nekk gàcce ci famille kon nag nañu def intervention daal ñaan yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal bu buñ ko mënee bañ a dagg daal ndax daal famille bi mu bokk dafa bokk ci famille bu rëy ñu ne nañ ca yabal Usaama ibnu ndax moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam sopp na ko soppoon na baayam Usaama ñëw wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko nit ñi wax mu ne ko atashfa'u ya Usaama fi haddin min hududillah ndax yow usaama da ngay jéem a tiru di wut ak ramm ci peen ci atte boo xam ne yàlla moo ko tëral dal ne ko maa ngi lay waatal ci yàlla ne kooku ngeen ne dafa tedd sama doom man di Fatima bu sàccoon mën danaa dagg loxoom kon ñu daal di xam ne kon bu dee wàllu nasab moom ci yonente bi sallallahu alayhi la yam ndax kookee teddam ga ñuy wax xëy na jege ko mu jege yonent bi ci askan loola lañ ko bëgg a joxe tedd nga ba jàpp ne kenn waru koo dagg mu xamal leen ne moom sama doom man bu sàccoon ma dagg la ko kon loolu mooy atte bi lislaam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy njëkk a faddu mu ne nag liy mujje faddu nag ci lislaam nee na moom mooy julli julli moom foo dem lu nit ñi sàggan sàggan ak lu caaxaan yi bari bari bari ngay gis nit ñi di ko def defin wa nag ndax dana rafet wala ndax dana mat loola moom beneen mbir la waaye ñàkk gaa def complètement dem ci dëkk boo xam ne dañu tëj jàkk yépp wala jàkk amu fa kooku jafe na moom ci réew dëkkub jullit moom julli itam mooy li dox diggante jullit ak kéefar muslim nettali na waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jim wax ne bayna rajuli wa bayna al kufri tarku salaa mu ne diggante nit ki daal ak digganteem ak kéefar diggante nit ak kéefar nee na mooy mu bàyyi julli su julleetul rek dafay daal di nekk ab yéefar xam nga ci suñuy waxin ci baatu julli boobu ci lañuy jële jullit muslim ñi ngi ko jële ci julli boobu muslim moom li mu doon firi mooy ku jébbal boppam yàlla waaye la gën a fis ca lam war a def nag mooy julli ñu jële ci nag baatub jullit moom julli moomu moo gën ci jëf yi ibnu mas'ud radiallahu anhu nee na sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayul amali afdal nee na laaj naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ban ci jëf yi moo gën mu ne assalaatu ala waqtiha nee na yonente bi sallallahu alayhi ne ma daal julli ci waxtoom loolu moo gën ci jëf yi nga xam ne nit ki dana koy jëf ngir di wut ngërëmul yàlla julli nag day séddalikoo ñaari xaaj julli yi nga xam ne farata lañu borom bi tabaraka wa taala daf ko farataal muy assalawaatul xams ak julli yi nga xam ne nag moom ay nawaafil la ay naafila la ay ndolleen la yoo xam ne nit ki da koy def di ko dolli koo lu baax waaye ni ko yonente bi sallallahu alayhi yàlla nag kenn du ko wut a jege di wut ndërëmam ci lu gën a màgg li mu farataal ci yow day gis ñoo xam ne ay naafil la ak ay ndolleen moom la ñu gën a farataal ci ay farata jàpp ne farata yi daal gannaaw moom lu ñëpp bokk la lu ñëpp yi def la ah yi nga xam ne moom xëy na ñenn ñi duñu ko def wala ñenn ñi sax xamuñu ko jàpp nañ ne daal lu loolu gën a raar loolu mooy ëpp tuyaaba fekk na nag borom bi tabaraka wa moom li mu farataal loolu moo la gën a gaaw a mën a may ngërëmam moo la gën a gaaw a mën a jegeel borom bi te it même naafila ya su fekkente ne dékuloo farata ya naafila yooyu du ñu tekki dara bokk na ci ngëneelu julli dana dox diggante nit ki ak lu bon day dox diggante nit ki ak lu bon li ko borom bi wax ci alquran inna salata tanha anil fahshai wal munkar julli day dox diggante nit ki ak i ñaawteef day dox diggante nit ki ak lépp loo xam ne lu ñu cible waaye la gën a rëy nag ci lu julli yi def nag mooy fàttali la yàlla wala zikrullahi akbar xam nga ñenn ñu foofu dañ jóom ci aaya bi defe def ne foofu tudd yàlla moo gën a màgg julli fekk ne julli moo jiitu ci tudd yàlla soo demee ci suratu taaha nee na aqimi salata li zikri aqimi salata limaata li zikri waaw ah, kon kay julli zikrullaa la zikrullaa la kon dalaa wax li muy def ci biti waaye nag mu wax la nag la muy def nag ci biir nag ci yëgloo la yàlla jamono bu nekk bu communiqué la ak yàlla moo gën a rëy ci li julli def ci yow maanaam tanha anil fahsaa'i wal munkar loolu doo mu taxu koo jóg bu defee ne julli foofu rek la yam waaye nag la gém lay fàttali yàlla nag di la yëgloo yàlla jamono bu nekk loolu moo gën a rëy ci li nga xam ne moom la julli di def fi ngay waxe allahu akbar ba ba ngay sëlmal lépp zikr la lépp zikr la bee ne allahu akbar loolu du zikr tuddoo yàlla allahu akbar tudd yàlla commencé jàng alquran kooku zikr la ba nga rukoo yaa ngay tasbix yaa ngay sàbbaal suñu borom tabaraka wa taala yaa ngi def zikr ba nga sujjotee noonu ba nga toogee di taaya noonu làmmiñ bi du noppalu benn yoon julli amul benn koo xam ne làmmiñ bi dana arrêté te li muy wax itam amul ci dara lu génn borom bi tabaraka wa taala lépp ci yàlla la dellu kon julli moom mooy zikri bi gën a màgg ndax soo ko xasee bay def cër yëpp ñu ngi ci ànd làmmiñ yi mu ngi jaamu yàlla nopp bi mu ngi jaamu ndax mi ngi dégg li ngay def cër yi benn bu ci nekk lay wàllam ci julli ma ngi koy def kon cër yëpp ci ànd benn cër bu nekk am na nuñ ko palaatee ci julli gi loo xam ne boo nee ci biir julli gi lii la war a def julli mooy sabab texe borom bi tabaraka wa taala bi muy lim melokaan yi tax nit di texe lam ci jiital mooy julli mu ne qad aflaha al muminuun alladina hum fi salaatihim xaashicuun qad aflaha texe na al muminuun a ñi gëm yàlla ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ne ci seen biirug julli dañ ci ànd ak toroxlu dañ ci ànd ak yëg yàlla ci biir julli ji xusoo xusoo boobu bu amu rek zahwu mooy daal di am saahuun ku nekkul min al xaashiin bokk min al saahiin julli gi daf lay war a yëgloo borom wa taala nga yëg ne yaa ngi taxaw ci kanam mel ne yaa ngi koy gis moom borom bi tabaraka wa taala wala soo ko gisul nga xam ne moom mi lay gis ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee ci al an taabud allaha ka taraah fa lam takun taraahu fa innahu yaraak julli itam ci la nit di amee équilibre maanaam tawazun muy ak dal ne mbégte du ko yóbbu ko fabbi jaaxle itam naqar itam du ko saalidloo du ko tàggooloo ak am na ñoo xam ne bu ñu béggee ba mëpp mbégte mi da leen di fàbbi seeni wax dutuñu ko mën a tee nag danañ wax ba wax loo xam ne du doon lu ñuy man bu ñu amee naqar itam wala ñu am jaaxle di itam dañuy taalif danañu wax ba wax loo xam ne itam lu ñuy rëccu gannaaw bi lay doon loolu nag borom bi nee na li ciy musal nit rek mooy julli suñu borom ne inna al insana xuliqa ida massahu lcharru jazua wa ida massahu alxayru manua illa almusallin alladina hum ala salatihim daimun ba aayay jeex suñu borom ne nit daal dañ ko bind ci ak ñàkk sago ak yàkkamti gaaw a jaaxle alhala mu ne ida massahu charru ne bu fekkente ne ay daf koo jot mu ñàkk wala mu feebar wala mu jaaxle nee na jazuan day saarit sagoog sagoog wa isa wa ida massahu alxayru nag nee bu amee xéewal nag wér am alal am njaboot nekk ci jàmm nee na manuwaa nee mu daal di xañe maanaam loola du ca joxe mu daal di moom jàpp na loolu moo ko abal boppam du ca di joxe àq yàlla da ca war mu ne nag illa al musallin nee na ki mucc ci loolu daal mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy julli te sax nag ci julli alladina hum ala salatihim daimun parce que julli nag da ciy sax médicament la booy jël ci ay waxtu yoo xam ne ah, boo respecté wul waxtu ya rek wala respecté woo dexiin wa la mu doon faj yow duutu ko fajati kon fokk da nga cay war a sax moom julli itam dafay laabal nit ki ci ay bakkaar dafay laabal nit ki ci ay ñaawteef jël nañ ci abu hurayra radiallahu anhu qaala sami'tu rasula allahi sal allahu alayhi wa sallam yaqul araaytum law anna nahran bi baabi ahadikum yaxtasilu fihi kulla yawmin xamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qaalu laa yabqa min daranihi shay qaala fa kadalika mislu salawat alxams yamxu llahu bihinna alxataaya muttafaqun alayh abu hurayra radiallahu anhu nee na dégg naa ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu toog ci saxaaba yi benn bis ne leen waaw law anna nahran bi baabi ahadikum kenn ci yéen su amoonuk dex gu nekk ci buntu këram dex gu nekk sa buntu kër mu ne bis bu nekk mu sangu ci juróomi yoon ci dex googu mu ne waaw ndax ak tër dana des ci yaramam woowu kooku dana desee ci benn tilim tilim ci yaramam saaba yi tontu ko ne ko laa yabqa min daranihi shay kooku day benn tër duutu des ci aw yaramam yonente bi sallallahu alayhi wa leen noonu la julli juróom mel noonu la juróom julli juróom mel yàlla da ciy far ay ñaawteef yoo xam ne nekkoon na ci nit ki kon nit ki saa buy julli julli juróomi day mel ne mi ngi sangu julli boobu julli bu nekk rek day mel ne sangu nga ci ay ñaawteef soo ko dee def nag bi benn tilim tilim ci yow moom julli ba tey day far ay bàkkaar abu hurayra nettali na jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne as salawaatul xams wal jumuatu ila al jumua wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna isajtunibat al kabair rawahu muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne julli juróom diggante génn julli gu ne ak morom ma la fa nekk ci ay bàkkaar yu ndaw yàlla da koy far diggante weeru koor wu ak moroom ma la fa nekk ci ay bakkaar yu bokkul ak bakkaar yu mag yi yàlla da koy far moo tax mu ne iza jtunibatil kabair bakkaar yu mag yi moom da koy wattandiku in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayiatikum sart bi mooy loolu in ngeen wattandikoo bakaar yu mag yi ñu leen tere jawaab ba mooy nukaffir ankum sayiatikum nee na kon bu boobaa ñu faral leen seeni bakkaar kon soo dee wattandiku bakkaar yu mag yi bakkaar yu mag yi nag bari nañu lool yenn borom xam-xam yi eggal nañ ko ci lim yu bari nañu ko eggale ci ay juróom-ñaar fukk ñenn eggal su ko ci ay téeméer waaye ñu ne daal daabitam ab tënkam mooy bépp tere boo xam ne gis nga yàlla tëkkoo ca mbugal walla mu tëkkoo ca ne ne ñu day yàlla mere na leen loolee bakkaar bu mag la oo gis mu wax ba noppi ne walahum adabun alim ñi def loolu day danañ am mbugal mu metti loolee mu wax ba wax azabun alim loolee kon min al kabair waaye nag mu am ci juróom-ñaar yu gën a fés yonente bi sallallahu alayhi wasallam tudde ko al mubiqaat mu ne ijtanibu al mubiqaat moo tax waaja wax ca way wane al mubiqaatu allati fi muslimin ruwiyat wa fi l buxaariyi haada al baytu jaamiuha mu ne muubiqaat yi nga xam ne muy bakkaar yu mag yi nga xam ne dañuy alal nit dugal ko ci biir safara mu ne Buxaari yow muslim kenn ko ne nettali na ko mu ne mi ngi lay andil benn béy ci képp boo xam ne yépp da cay nekk mu ne shirkun wa sixrun wa qatlun walfiraaru riban maalul yatiimi wa qasfun huwa saabiuha shirkun moo ca jiitu bokkaal ak yàlla kooku moo jiitu ci kabair yi wa sixrun ak njibar jibar di jibar wala ngay jibaru waxat loon ak rey bakkan te tey ko bi xayri xaq wal firaar ak nag daw ci ab xare xare lislaam am te limub yéefar ya ëpp ñu ñaari limi jullit ña nga daw maanaam su jullit ña dee téeméer yéefar ya di ñaari téeméer kenn du sañ a daw parce que benn jullit bu nekk yàlla ñaari yéefar la la fukk la la tase woon ba yàgg mu ne al aana xafafa allahu ankum wa alima anna fiikum dufa yàlla waaye falal na leen ko xam ne ne ak faiblesse am na ci yéen waaye léegi fa in takun minkum miatun saabiratun yaxliboo miatayn wa in yakun minkum alfun yaxliboo alfayni bi idnillah kooku nag mooy minimum bi moom waaw miatun saabiratun daal yaxliboo miatayni moom téeméer bu muñ mën nañoo duba ñaari téeméer moo tax kon bu ñu ëppul loolu alfiraar dafay nekk min al muy daw dafay bokk ci kabair mu tekkee riba ak lu riba lekk alal joo xam ne léwut riba moo xam daga lebal nit ñi di ci ko intérêt ñu koy tuddee riban nasi'a ñu ko tuddee riban nasi'a maanaam danga leen a lebal ah comme weer wu dee lañu lay fay comme bor bi dafa xaw a yeex nga yokk ca dara bu weer wa dee bu fayul itam nga yokkaat waaw wala ngay jaay loo xam ne euh, ñoo tolloo ba noppi nga di ko yokk maanaam loo xam ne dërëm ak dërëm nga doon wecci nit ki di ko wecci dërëm ba noppi nag ne ko man ñaar dërëm nga may jox man ma jox la ab dërëm kooku fadlu la da koy ëppale ëppalante googu ci loo xam ne ñoo yam loolu riba lay nekk nag bépp façon boo xam ne daal yaa ngi ciy lekk alali nit bil baatil borom bi nee na laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil bu leen lekkante seeni alal ci neen kon na ngay fàggoo alal bu ca àqi doomu aadama yi nekke loolu dafay daal di nekk riba boo jàppee ne daf lay yokkal itam daf lay wàññil ndax borom bi nee na yamxaqullahu riba wa yurbi sadaqaat sarax mi ñenn ñi jàpp ne day manquil alal kooku moo koy yokk yur bi sadaxaat yur bi baatu euh, siyaada bi parce que arriba siyaada lay tekki dolli waaye nag soo bëggee mu dolli ko mooy da nga ciy jël joxe danga nga ciy jël joxe su ko defee borom bi tabaraka wa taala fulal la ko amma boo jëlee loo moomul def ca nag loola moom daf koy yàq ba ca tegu mooy xaful muxtanaat mooy nag di xat ay jigéen yu sangeewu yu ne ci seenub sëy nga di leen xat di leen tuumaal ci tuuma joo xam ne amoo ci benn firnde di leen jiiñ ay moy yàlla kooku min al kabair kon yooyu ku ko wattandiku ak yeneen yi mel ne moom borom bi tabaraka wa taala dana la jéggal bakkaar yu ndaw yi su fekkente ne yaa ngi taxawal julli bakkaar yu ndaw yi nag ndawuñu waaye ci kaw bu ñu leen méngalee ak yee ne bakkaar moom du daw waaye nag ci boo ko dendalee ak yële muy bokkaale yàlla moom xam nga ne loo ko dendaleel moom loola lu ndaw lay doon ci wetam loola lu ndaw lay doon ci wetam ndax moom mooy li nga xam ne su xase am leneen lu baaxoon day yàquwaale xam nga mën ngaa julli julli gi yàqu te sa koor du yàqu mën ngaa koor itam dog ci biir koor gi léegi juum dog mais julli yi nga julli woon yàquwuñu asaka ji nga jóge woon yàquwut waaye nag soo juumee nag ci tawxid nga ñàkk a bokk nga bokkaale ak borom bi tabaraka wa taala moom yow ñu ne duñ ne rek taaniya moo yàqu mais julli yàqu waale na xoor yàqu na asaka yàqu na aj màkk loo defoon yàqu na ndax borom bi moo ne walaw asraku la xabita anhum maa kaanu yaamaluun walaw asraku te ñam ko doon wax de ñooy yonent yi ba mu leen taggee tagg leen tagg leen ba ne ulayka alladina hadahum allah fa bi hudahu muqtadi ñii laa jubal ku bëgg a jub royal ci ñoom ba nga a axaraa ñooñu de kon ñoom seen mbir jeex na mu ne nag walaw asrakoo ay bu ñu bokkaale la xabita anhum maa kaanoo yaamalu lu ñu jëfoon dinaa ko yàq yonent lay wax de waxul nit ordinaire waaw ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne ko wala xad uhiya ilayk wa ila alladina min xablik min xablik ña ko jiitu woon ba leen libee wax na leen loolu la in asrakta la yaxbatanna amaluk amaluk amal bépp yàq bis boo bokkaalee sa jëf yëpp naa ko amit wala takunanna min alxaasirin balillaha faabud wa kum min alshakirin yàlla kese kese na ko jaamu te nag bokk ci ñi nga xam ne euh, dañ koy sant su ko defee kon moo tax bokkaale moom mata watandiku bu baax a baax a baax a baax waaye bépp bàkkaar itam mata watandiku ndax bàkkaar bi lu mu nuru nuru lu néew te tuuboo ko boobaa dafay mujj nekk bàkkaar bu mag dañuy wax ne la zanba ma al istixfaar wala istixfaara ma al israar su fekkente ne dangay ngay jégglu moom bàkkaar doo ko defem di tuub waaye su fekkee ne nag da ngay jégglu ba noppi nag israar ca bàkkaar ba muy continuer di ko def kooku kat bu boobaa nag njégglu nekku fa njégglu nekku fa booba euh, julli moomu yonent yi yitte woon nañ ko lool yonent yi jiitu woon yépp kenn ku ci nekk julli moom mi ngi woon ci sa diine te joxoon nañ koy importance bu rëy gis nga Ibrahim alayhi di ñaan boroomam tabaraka wa mu may ko mook ay sëtam ak njabootam ñuy taxawal julli mu naan rabbi jaalni muqima alsalaati wa min durriyati rabbana wa taqabbal duaai rabbi jaalni yàlla yàlla nga ma def muqima alsalaa may taxawee julli wa min durriyati ak sama njaboot sama njabootam yàlla nga leen def jamono bu nekk ñoom itam ñuy taxawee julli yàlla yàlla na nga nangu sama ñaan gis nga ñaan gi ñaan loo rek la daal ne rabbana wa taqabbal duaai julli itam bokk na ci ngëneelam ci la nit ki di yeyoo ak tamkiin fil ard yàlla may la doole ci kaw suuf bokk na ca sart yay tax mu defal la ko bu la mayee doole nga taxawal julli doo fat julli xam nga ñu bare bare bare bu seen àdduna xawee dox rek euh, pour ñu taxawee ci julli dëgg dëgg dëgg dana jafe ndax julli taxawee nga mooy di ko def ci waxtoom activité yum la mën a fekk nga dagg ko julli ab réunion congrès lum la mën a fekk nga dagg ko te julli ci nga kooku lu jafe la te itam di ko defee ci mbooloo waaye soo demee bana damay kilifa su ma demee mbooloo ma dañ may nuyu wala dañ may raj-raj loo ci sama kaw ba du ma fa dem loolu amoo ca ngànt amoo ca ngànt parce que mbooloo ma sooy def àq yala war ci ñoom yoroo àq kenn loo man ci lu baax itam yaa ngi koy def kooku mbooloo bi duñ la duñ la tagal fenn parce que yonente bi sallallahu mooy doon personnalité bi gën a mag bu fekkoonte ne doon kilifa rek dana tax dootoo ma ne ci biir nit ñi fekkoon ne doon kilifa gu rëy rek dana tax moom dutoon ne ci biir nit ñi kon dutu ci mën a ne waaye gis nga la mu toll woon ci daraja waaye dafa wàcce boppam ba mën a ànd nit ñi wax fit janaaxaka limani tabaaka min al muminin loolu la ko borom bi wax wàcceelal saw laaf sa daraja ngir ñi la topp te yàlla parce que nit ñi koo ñuy gis di riir di wuti rek mooy gis leen dalaa ja da leen a gis leen da leen a jafe su ko defee suñ amee occasion gis la nag duñ la may jàmm waaye su fekkee waxtu wuñ la bëggee gis gis la kon kooku du jafe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa boo mësaa ñëw boo ko fekkul ci jàkka ji bu la waaye boo nga toog tuuti xam ne waxtu julli dana jot te fokk dana génn waxtu julli dana jot te fokk dana génn te bu génnee bu jullee mën ngaa ñëw wax ak moom amul protocole bu lay tere naan la doo yegg ci moom ndax moom ci ñëpp lañ ko yónni moo tax ñëpp am ci moom accès direct amul ñu ne ñu suuf ñi ñu naan yamal ci diw yamal ci ki topp ci moom wala déedéet waaye ku lu waay néew néew néew daraja daana dox ci beddi madina yi koo xam ne sax ku ñuy moom la ab jaam la dogale ko téye ko di wax ak moom yonente bi sallallahu alayhi day taxaw ba mu wax a wax a wax ba noppi mu toog a def ndax moom ci jëpp lañ ko yónni inni rasulullahi ilaykum jami'an jami'an waaw loolu moo taxoon mu mën a ne ci biir nit ñi te yàqalu ko def la nga xam ne moom la war a def moo tax borom bi ne alladina in makkannahum fi l li ma leen njëkk laaj mooy aqaamu salaa wa aatawu zaka wa amaru bil maaruf wa nahaw anil munkar waaw nee day ñoo xam ne bu ma leen mayee doole ci kaw suuf def leen tamkiin ñu yore adduna bi di ko gouverner bu fekkee danañ mën a iqaamatu salaa di taxawal julli duñ man jàkka ya seeni alal yi tam ñu cay joxe asaka di digle lu baax di tere lu bon ah ñooñu de kon bu boobaa yeyoo nañu at tamkiin ci ard mooy yore baat ci kaw suuf yore doole ci kaw suuf mais su fekkee soo yore responsabilité waxuma la tax yilif réew mi waaye ab entreprise rek boo ko yilifoon dootoo mën a matale julli dootoo jaare fu ñuy digle lu baax ak tere lu bon ndax kiy digle lu baax ak tere lu bon boo gisee mu war kenn ku nekk daf lay protéger parce que mbir mi soo ko bàyyee dong yem ci mais mais terewoo ko bu ëllëgee mën nga cataat mais soo nee lii lu bon lu bon li du ma ko def ba noppi tere ku ko def tere googu ngay tere koo def ñàgg nga sa bopp ba doo ko def ndax jël nga beneen engagement ndax mbir mi soo def soo ko bàyyee rek waaye kenn déggul nga tere ko ah bis mën naa am nga def ko bu ñu waxee nga ne damaa juum wala dama koo xamul woon ko tere nag nooy waxee ne dama damaa juum wala wala dama koo xamul loolu wala dama ko fàtte te yow yaa doon wax jamono bu ne nga di ko tere ah moo tax borom bi nag ata'muruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum ci kooku la gën a garaawe wa antum tatluuna al-kitaab afala taqilun lu baax itam boo ko diglee amatoo rayu bañ koo def su fekkee loo mën a def la mais su fekkee da nga koy def rek waaye digle woo ko ëllëg bis mën naa ñëw defoo ko ñu ne waaw yow tax defoo nangam nga ne man loolu dama koo xamul woon wala dama ko fàtte woon waaye nag su fekkee yaa ngi ko daan digle jamono bu nekk loolu daf lay sax ci nga gën caa taxaw kon kii diggee lu baax ak tere lu ban ñu jàpp ne nit ñi lay waar mais boppam la njëkk a waar boppam la njëkk a waar ndax li muy digle war naa fexe bañ di ko ca gis tere war naa fexe ba kenn du ko ca séen julli nag bàyyi ko garaaw na lool doy dal ko itam noonu borom bi tabaraka wa taala tëkku na tëkku yu tar kuy bàyyi julli wala mu koy doyadal ca sootu Mariam bi mu taggee yonent yi tudd leen tàmbalee ko ca Ibrahim waskur fil kitaabi Ibrahim jàll si waskur fil kitaabi Moussa waskur fil kitaabi Ismaïl waskur fil kitaabi Idris bañ noppi gis nga Ismaïl sax bokk na ci lam ko tagge wa kaana ya'muru ahlahu bis salaati wa zakaat wa kaana inda rabbihi mardiya Ibrahima ah Ismail daf daan digal njabootam julli ak asaka ba tax na ku ñu gërëm la fa boroomam wa kaana inda rabbihi mardiya kon nag julli itam ku koy def itam bul sàggan ci di ko digal sa njaboot di ko digal sa njaboot wa kaana ya'muru ahlahu waxuñu rek da daan julli de mais doon na digal njabootam julli loolu jafe bare bare bari dañ góorgóorlu ci julli mais sàggan ci seen njaboot ba duñu julli mu ne ku ñu gërëm la fa borom bi tabaraka wa taala borom bi mu leen tuddee borom mu ne nag fa xalafa min baadihim xalfun seen première sikk mooy adaau salaa waaw mu ne ñooñu nag ba ñu fi jógee ñeneen wootu nañ leen fi ñoo xam ne dañoo tànk julli dañoo tànk julli du ñu julli wala bu ñu dee julli du ñu julli ca waxtu wa wala du ñu julli itam ca mbooloo ba wattaba wattabau ashahawat ñu topp seen bànneex ñu topp seeni bànneex fa sawfa yalqawna gayya mu ne ñooñu day dañu nañu dajeeg mbugal borom bi dellu ñu wax suratul mudathir ay nit ñoo xam ne texee dinañu nekk biir safara ñu ne leen maa salakakum fi saqar waaw yéen lan moo leen dugal ci safara wii ngeen nekk di saqar qaalu lam naku min al musallin nun de dandaawul julli lam naku min al musallin wa lam naku nut'imu al miskin wa kunna naxuudu ma al qaa'idin wa kunna nukadibu bi yawmi ddin hatta ataana al yaqin waaye premier ba la ñu njëkk a def mooy nee na dañ daawul julli julli nag soo ko xasee bàyyi yu bon yépp dañuy daal di mën a dugg si ndax julli moom lañ ne woon moo leen di éliminer moo leen di tere inna salaata tanha anil faxsa kon bu julli amatul kay faxsa moom daal di ñëw waaw gardien buntu bi kay bu fi jógee comme neex dugg Ah, julli moom moo taxawoon di garde yooyu yëpp kuy julli moom ak mbon du mën a dugg si parce que dafi dul xaj bu fekkee waxtu juu nekk yaa ngi ko bëgg a waajal bëgg koo julli ji jëm mbooloo ma ah am na yoo xam ne soo ko bëggoon def ci mbon itam du fi xaj du fi xaj boo fi naanee sàngara bala nga ximulikuwaat waxtu yu jot te kon bootu da nga tardé julli gi te comme yow bëgg nga waxtu wa ji wala xet nga balaa tàggoog yow ah da ne kon far daal xaju fi daal naa ko far bàyyi rek kon moo tax borom bi ne day tere ay ñaawteef waaye nag ku ko bàyyi nag moom ñaawteef wu nekk nag mën naa ñëw gis nga moo tax bi mu ne adaa u salaa rek wa tabaxu sahawaat sahawaat yëpp dañoo daal di dugg ci waat wa tabaxu as sahawaat waaw fa sawfa yalqawna xayya illa man taaba gis nga ñii tam ba mu ne lam nekku min al musallin julli gis nga yim ci daal di teg walam nekku it nu te amul ku dul julli du jox miskin dara lu mu dugg ci fekk wax jom fekkee da cay daal di dugg wa kunna naxuudu ma alxaaidin dañu daan nuur rek di wax lu nu xam ak lu nu xamul wa kunna nukadibu bi yawmi diin dañ doon weddi itam yowmal xiyam ci loolu lañ nekkoon nag ba dee dikkal nag atta atanal yaqin nu xam ne ne li nu nekkoon caaxaan la